yaay ni mu neexee ci xool dañoo laal sa yaay rek nga jug ne poqet yëpp say cinq sa mille ak sa peñe yónnee ko ne dangay baalu àq Pawlish baaluñu la man personnellement baalu ma la bu ñu koritee baaluñu la gis nga bu ñu nekkee ci weeru koor xaru ramadaan mi nga xam ne ku la toon da nga ko cee war a baalu ñu la suñu diggante ñun ak yow ak ca yàlla bu ñu taxawee yàlla dañuy laaj suñu xalaat naan da ngeen koy baal wala baaloo leen ko mën a ko baaluñu ko yow ñun nga yàq ñun danga ñoo mën a yàq Pawlish Mbaye ñun da ñun suñu carrière yëpp dañ koo def ba pare zéro fët yow mënoo ñoo yàq man xamoo ma man xamoo ma mënoo wax si man nga ne man man nga yàq dara dérangé wu ma ci gis nga sa wax yi yàqu sama liggéey maa ngi xëy di liggéey di jaay sama xaalis bu weex tàll te yow ma xamal la benn affaire gis fi nga bëgg fi nga waroon a baaloo dafa trop tard yow dangaa bàyyi ba mbir yi nekkatul sa suñu loxo nga ne dangay baal man nag Ndeye Fatou mi nga traité caga traité ma tous les noms yàq ma gis nga Pawlish Mbaye man jukkooy lébu laa yor bëgguma baati ginnaaw moo tax foo fekk damay moytu man fekk naa ba ni ma choisir teg fekk mi di commerce ne ci sama bopp bëgguma dugganteeg dara loo xam ne day yàq sama der bëgguma sax ku ma interview bëgguma sax ku ma invité ci ay site bëgguma sax ku ma invité ci télé dama koy daw ndax bëgguma li ma gën a naqari nag mooy yow wax la waxloo gi may waxloo te man bëgguma ko loolu rek moo ma gën a metti ndax danga laal lu sori ci man danga laal ki nga xam ne kuñ ko laaloon ku ñu laaloon sa yaay mbaa fekk sa yaay mu toog ñu saaga ko tey kenn du am jàmm ngeen ne duñu wax ngeen ne duñu révolté ngeen du duñu wax suñu day ji nga xam ne suñu fët dafa jub kootu na bant lan moo tax man nag dootuma wax a teg yow de mais baalu àq bi moom teg ko ci suuf maa lay conseillé nga ne yow boo yóbbuwul euh, suukar koor bi danga yebal ay nit ñu ko Serigne Touba laa lay giñal bis bu la yàlla taw ba nga yónni nit wala nga déplacé wu ñëw ci kër gi nga naan da nga fi indi sukkaru koor benn benn danañ la dóor ba ngay bëgg a ñaar ki nga yónni du jëlee lu ko fa neex ay dàllam ci buntu kër gi la koy fore ñett violation domicile ngay def te luñ la fa def yaa ñu toon boo bëggee 500 millions yoo joxe tee ko ndax yaa ñu ko gën soxla ñun duñu ay baadoo ñun ay juddu suur lañ dañoo juddu màgg fekk suñu maam yor ay gétt ki nag di yëkkati alalam di faj ay bu mu ñun dañoo mën a faj bu mu gàcce ñun gàcce gu ñu fekkee faj ko te kuy suñu nit duñ la xool duñ la xool ngay tumuraanke gis nga sa 500 mille yooyu ñoo la ko dàq joxe ñoo la ko dàq maye ñoo la ko dàq bazarde bu dee nag da ngeen def seen collation ànd matadil faatu bi du fii ndax faatu bi am na doom ju mat doom am na taaw ju mat taaw am na taaw joo xam ne lu muy wax ak moom day diw ak moom waaw. salaamaaleykum Pawlish Mbaye nga ne dangaa dajale da ngeen a def seen cotisation noonu cotiser ba mu mat 500000 ngeen bëgg ko jox Fatou Laobé pour mu baax leen àq gis nga boo leen bëggee foo leen génnee asaka ak foo leen génnee suukaru koor ak muurum koor da ngeen koy yóbbu ci ñi koy yelloo Fatou Laobé taawam bi toog mat sëkk mooy calque mooy compter ay bee yu weex tàll di ko ko jox te ma lew ko nag jaay ma sama bopp di ko ko jox sàcc ma ko di ko ko di ko ko jox mooyu ma ko di ko ko jox dama koo liggéey ñax ko mu lew ma doomu ma jox ko sama ndey ji ba muy laal cinq cent mille boobu yow xalaatuñu woon ne di nga dox ba siiw man mii doomam bi may laal un million xalaatuma woon na yow ku tudd Pawlish Mbaye dina xewiti ci kaw suuf soo bëggee koo baalu ak da nga koy wuti man personnellement man day faatu baalu ma la fatloo ba baalu la gis nga doom dafa foor gis nga waajur dafa foor danañoo laal sa yaay nga doo a xam ne yow danga def faute pour nga jug pour reconnaître li nga def ñun